abdillahi doo muusa kaan du nit du jinne doo malaayika doo kainaatillahi doo muusa kaan jàpp ci daam muy dëgg jàpp yàlla tudd turam ngën ji tudd yàlla borom Tuubaa di tudd tur wa muy dëgg tudd yàlla mboon ma àgg naa ku bëgg a sell del si kar turam wi sikran kasiiran tey xalam melom wi di ko di kar fi sigri wa tafakkuri ku ko saxoo waat naa ni dootu la sori walliyu kaamil mooma di turam wi ma di ko di ba janoo melom wi gis ma Muhammad lam ma wax ma ko waaye du tee ma naa ko nam mu la borom Tuubaa yaakaar ji bëgg naa la xol di jooy sa bët tooy te yaa tax dee si kar turam wi yëg leeram gi buy wuta jul lu lay xamal ne gi te wax ak a soreek ay njortu xaqul yaqiinu laa am duy fortu maa ngi bërë góoru ñi bajjo faalo sakkal ko am kem daa xaram ni njaaloom sakkal ko am kem daa xaram ni kuy sikki sakk suuru faal say say la kuy weddi mbuutum yàlla kay yéefar la kuy sikki sakk suuru faal say say la di mootum yàlla kay yéefar la nawleem amul seex ibra kenn du xand ci pënd jéegoom waaju ko soobu fënd kenn mës la ko ku mel ni moom ci diine amul ci bii daani ak soo daani ab sañ-sañam masiifu ko sañaale ca aadama muhammadul kamaali lim ci mbóot ba noppi daat ni yommu ko sëfoon ca góor ña doxam damm kenn mës la gis gàddu lii mu gàddu te boole seen wali yu yang ni jodd te alku wuñ te sanku wuñ te réeruñ maa Ibra Faal moog ñi ko topp sooyuñu si Ibra Faal góor ñëpp a yem dayom njamal gu mag ndaw mën la laal jëgën amul ku lamboo martabaam ci yàlla ca yàlla ambuna xayrul xayru ne sëpp sawuma ibra faala yéeme mës la gis wi melokaan moo tiime muy ngëm gi taxanu gëm di dox ci dëgg waaju ko noonu di rus ba sëgg muy ngëm gi taxanu gëm di dox ci dëgg waaju ko ko noonu di rus ba sëgg dam yàlla ne ko noonu lamp bon ku weddi ngëm nu muy demee aljanna dam yàlla ne ko noonu lamp bon ku weddi ngëm nu muy demee aljanna mooy nattuwaayu ngëm yi ngëm mbootam la ku gëm na xam ne xoromos naaram la moo wane ngëm moo jara gëm mam lamp mooy àggu waay bi gën a jub moo jàmp la muy defal góor ba mu mat ba motti te jaariwul ci xàll wi ñu xotti ku mën na daba ku xam ne wi yoon waa ngoog ma Ibra Faal góoru jutiwul fa muy toog mën na def ku xam na wi yoon waa ngoog ma ibra faal góoru jutiwul fa muy toog diine amul ku mel ni sëwru faalu moo gëni góoru bir na ko amu solo kenn mës la dégg fenn aw doxinam mooy royu waay bu jub di ngir jëfinama ma boobu rijaalu lahi sirlu lahi ma ibra faal siidi rijaalu lahi abu rijaalu lahi sirlu lahi ma ibra faal siidi رجال الله أبو رجال الله سر الله Cheikh Ibra Fall yow rek jëf ba lagge mboolem kamaan yu mag yi yaa leen jaggi góor mën la jëf ma dab ko loola faat na mbootam ma diis na góor yi ahlu sunna Cheikh Ibra Fall nuuru rijaalullah tawan wa karhan daiman lillahi Cheikh Ibra Fall kanziyatul ilahi الورى ذر كمال الله سيبر فال رحمة رب العالمين سيدنا إبراهيم سيد الأولين سيبر فال دليل سات الله باب سيوق سور باب له سيبر فال جلال كون الله ما إبر فال جلال سر له سيبر فال يا قليل الله فالكل غنت مي هدو والله dem aljanna ma ibra faal xol bu ko dee na ruuxam nga lu nëbb du dem aljanna ku noonu waayi yàlla loj na ruuxama nan na posan daanu ci kam bi lëndëm mooy ruuyi mooy bakkan di jàmmi nit ñi ku benn biram malaaka yaa ngi koy ñaññi mooy taaru diine ku mën la gis taaram bi sëb gi sa ñaaw ci sëwru faal yaaram bi moo tax borom tuubaa mi ëmbu diine jiital mbirum ma Ibra Faal du cuune ku yàlla dul xamal du xam la faddu du xam la gën si Ibra nee na jodd jëmm ma gën waxam ma gën jëfa ma gën yoona ma gën ci yooni topp koo gën a mbiram ma gën yoon wi mu xat na rikk te yàlla mooy yoonu ahlal janna way mujj yëpp a xam ni mboot mboot la way jiitu ñëpp a xam ne njiitu ñi ña jiitu moo jiitu ca ñoom bañ jiitu yowmal qiyaam kum rambuwul nga juutu ña àgg moo àgg ca ñoom bañ agsi te lii ma wax biir na ko tabbi arsi way mag yey doxantu booba xam nañ si Ibra Faal ku manqué rek ka koy bañ ku yëg yëgam sar di nga Seex Ibra ku ko yëgul loo mën di yëg du sar ku gis gisam wéy da gis lu laqu ci Seera Faal lool ku ko yëg du yàqu moo gën a xam yàlla ku yàlla bind moo tax mu xam daan yàlla mii nu ma Ibra Faal wujjam amul ca ëwal amul ca aaxir sàkk na góor ñu ko sàkk na góor ñoñ fa ñu àgg yàlla niiwaana góor àgg fa ciy mam xalaat yaa ngi ni makk njool ma yaa ka yaa ngi ni jàkk yàlla ba jofaalu yaa ngi ni makk njool ma yaa ka yaa ngi ni xaj bamba mën nga xoole yaa ba gis ndam yàlla am nga doole bu bamba doon gaynde nga doon bëñëm ya yor ñeenti yéere sa xamee dégg ja ku gëm borom tuuba da koy gëmaale mbaalu ko muy sa gëm ju dun ko faale mooy rabbi ndëppi say xinan xaddiimi maami sëriñ seex jëmbu faale yéeme la fa la fa peggi daam ku la ma ibra faalay loola jam ñi xamuñu yal nañu daam gindi ci suuru faala jalaalu kaw nu lañi kon laala yal nañu bamba yee ci bajjo faala kamaalu kaw nu lañi kon laala te bamba lakk ñu ci xajji faala jalaalu kaw nu lañi kon laala yal nañu bamba sàmmuloo mam lamp mu di ñu sàmm di ñu jox ñuy namp mooy sàmm boobu juróom du yooyu duruur le buñ ko fi réew li seera faa la gën li yal nañu xaj ji faa la gën di gindi ci jëmmi jëmmam jëmmi boroom barak bi bi jaahi muj tabaana bi tahaan bi sirri laa ilaaha illallah bi jaahi muj tabaana bi tahaan bi sirri laa ilaaha illallah bismillahi rahmaani rahiim barke borom Tuubaa ngërëmal bur yàlla ndax gisuloo Seex Bamba jàmbaar ji tax ñu nekk xaraaru yow mi diwut diwut ngërëmal bur yàlla ndax gisuloo Seex Bamba jàmbaar ji tax ñu nekk xaraaru ku i jàmbaari maam Cheikh Rafal sangu borom daaru moo kennaloon yàlla gëm yonen ba mooy kawayoon qalbi lahu fi itaabin jismi takraaru sellam nga semmal na seeluk noon yësal sëliwoon ngir suul ku mësta tawat te mësta bakkaar ko gëm moo ni woon yàlla di xaaru tawhiid du jar wax dëggantaan bamba rekk a ko am ngir luñ ko def weddiwul te woon na xamaaru jam nañ ko ay rabb gas nañ suul ko door ko betal tiipal ko ay fani di sakaaru tubaab yi jël ko jëm Gabon ni c'est bon buy egg faatoo fa noon ba makkaar sëñ Bamba jël xalimaam di kañ boroom bokkum moom tiitul raful jublu rek sangam ba muxtaaru yàlla bañ Mustafa bañ gaay abraar aayoo na yoo yaa bu soo ñàkkoo xorom ragaloo te bakkuwoo ndamoo yay ngeen ngi abraar bismillaahi rahmaani rahiim jërëjëf borom Tuubaa jugaan nañ di santaat la ngir yaa bi gën te ñun Mbàkke yaa baax ci ñun sant nañ nañ di santaat la ngir yaa bi gën te ñun Mbàkke yaa baax ci ñun sant nañ rawee nañ ci yow Mbàkke yaa tax ñu raw te yaa may ñu tawfeex de ñun sant njariñ jam ñi yaa def ko yaa say xanaa njariñ yaa ko yor mbakke ñun sant nañ fajug aajo yaa yor ko yaa say xanaa te yay faj suñuy aajo ñun sant nañ texeg jam ñi yaa yor ko yaa say xanaa texe nañ ci yow mbakke ñun sant nañ borom màggalug Tuuba santay li wara ci yow fa Mbàkke de ñun sant nañ borom muñ mu neex ma te kat doom ga te kaalaam nga jot lool de moom laa di way borom kaala googe waral kaala yi kutal kaala wooti na koy sant tey borom dalli karbat ya moo tax ba nuy maraakiisu tey ji di sant ak di way borom fitwa ak ngor ga ak jom ja cey borom jom ja jom man nañuy ak ñëwey fitam wee waral tey ñu am feet gu rëy te mooy màggalam gi ndamam laa ngi ciy ngoram gee waral it ñu doon doomi gor dogoo nag ngoram ga ñu doon doomi moy ñu delloo di santaat la yaa say xanaa amoo maas moroman te woo ñeek ñu wiñ borom col bu weex gee waral rafle dogon moom dañuy rafle bay ngem tey ku tal sañse war ci otom jug di dem na yëg lépp moo maa yaa ngi tey te moom fas la daa te tey noo ngi nii oto kii bi yoonun la war di wéy borom tukki boobee waral tukki tukkem baa waral yi te ñu tal tukki tey di dem ak di ñëw ndaxte moo dem ba ñëw bu dul woon demam ga de ko tey ñu delloo ci santaat la yaa say xanaa amoo maas morooman te woo ñekk ñi wiy ku lay dendalee kenn moom daa xamul ku lay dendalee kenn def mooy guréy kilee andi xéewal yi ñuy ceebu tey di mis di afra ak di nos noonu may te moom mës am poos te tey noo ngi nii suñuy poos li ciy nekk mooy kiñ ko may te ñàkkam nga poos it de moo tax ba tey suñuy konti banque ak li ñuy am fi tey kon ñu delloo ti santaat la yaa say xanaa amoo maas moroman te woo ñit ñu delloo ti santaat la yaa say xanaa amoo maas moroman te woo wàññeeku wiy nañuy sant santay li war ñëpp sax ku dul sant doo gor nde santal ki tax nañuy sant santay li war ñëpp sax ku dul sant doo gor nde santal ki tax salaatan salaaman alal mustafa ci ci barkeb xadim mi na suñ lépp dox